amit effet. defal la yàpp duuf a duuf. boo yoree ba pare mu jox la ay fruits. waxuma la leen waaye gis nga soow mi. soow mi piir nga suukar am waaye foo ma jëm sën. neex a dëkkal di boo demee rek yàpp woo koor wala wenn fiiriir defal la ñaari xobi salaat di la wax. ndi lii nga war a lekk luy yoona xaw ma luy yoonam ci man. baax sama nyari bii de yàlla fi yag tëbër sonna torop torop torop torop torop sonna bay ah. bay waaye waaye baax na xam naa def de ay nijaay ay nijaay lan nijaay ku deg li ngay wax yaakaar ni duma la jox nga lek duma la jox nga naan nijaay bàyyi li ngay def di yàq sama jar bi yow xam nga luma def rek top sa régime war bul ma top yi ngay naan soow yu niin yi ngay naan di lekk ceeb yu baax sa wér-gu-yaram yow yow umpale woon yi da am tension da am diabète te aussi da nga am cardiaque yooyu yëpp boo ko boolee baax sa wér-gu-yaram ku wax ni baaxul sama yaram ku ko wax nijaay da nga dem kër docteur ñu jox la ay tegtal yoo xam ne boo ko toppee dina baax sa wér-gu-yaram waaye lu la neex rek yaakaar nga ni moo la neex waaye dimbali baay bala maa bëgg a nga may wax kër docteur man docteur yi ma xam ku ci ñu ci bari dem naa seen kër te leer na ma ni docteur Abdou nya yàpp wu duuf lay nek ba la ko wax waaw lu bax la bëgg docteur Samb lu bax la bëgg yàpp wu duuf lay nek te gis nga xoola ak mawlud Jee lu bax la lay nek di nek fir wi nijaay yaa di nak sa bop parce que yow li la dal est-ce que mo leen dal yow li ngay yëg mu lay metti est-ce que ñom lolu mo leen ni metti loolu bu si naajoo parce que boo si naajoo di nga indi sa bopp problème rayaale la ñu. man daal li ma la wax mooy. bis bu ko bu ko Lamine Thiam tere woon ma ba ko. waa nijaay yow li may dégg sànq ba day ci kër gi lu mu doon. xanaa bëgg dee rek te sonn. naqaree ko sën nii moo ma sonal. xam nga ni nekkuma naanuma xiif moo a jàpp. ma sama nijaay mi yaa ngi koy ndax yaa ngi koy defar yoo xam ni baaxu ci wér yaramam lii muy wax yëpp ci sa néeg la ko tàmbali te ñun yow xam nga ni moom lañ am bu génne àdduna fan moo ñu toll ah xarit nag sama nijaay mii lu mu bëgg rek koy defal mooy dëgg de nijaay daal bu la ko defal ma defal la soow yi sax sàpp nga suur loolu doo lañ fi yaa ma bëgg de te sax loolu yépp dama fee indiwul woon nijaay daal ab nii fan yëpp yaramam bi fees dell ak tâche xaw ma lan moo ko daal nee na lan doon diwoo ba yaramam bi am ay tâche te yaa oh, yow lu def ni sa yaram man daal papa xam nga man damaa bëgg xeesal ba tut bu ma gis rek mbaa produit bu ma gis rek diwoo ko moo tax sama yaram yëpp a ngi nii yàqu na xoolal ay rewat fu nekk cuqatuku. bul taxaw yóbbu ko léegi hôpital boo demee ñu seet ko ordonnance bu ñu ko bindal dinaa ko jël gaaw leen laa wax. waaw yow sa yaram yàqu na. incha allah mi daay yow daal ñaanal ma su ma demee rek ma fekk ko docteur bu baax ab sa mi damaa bëgg mu xiisal ba weex tal ndax xoolal moromam dañoo diw ba weex ndax loolu rek lañ ci am nag. waaye demal docteur Ndiaye dafa demal boo demee nga ne ko maa leen boole. man tànn nga sama xol bi yëpp man xamatuma sax lan laay wax. sama ni jaay mi ku ko dégg yaakaar ni maaleykum salaam maaleykum salaam sonn yuusu dee naa tàyyi naa war ngaa lijjanti sama kër war naa lijjanti sa kër yuusu maa di bëgg a dee ko woon kin may jox may nekk ci sama bi may bëgg ko fukki at ak ñett la li muy def yëpp topp wér-gu-yaramam rek moo tax ma ko def yow umpale woon dafa am tension dafa am diabète te aussi dafa am cardiaque yi mu bëgg yëpp bu ma ko ko defaree dina xëy suba faatu ñun ñu torox Salif ku la newul sa bët bi suufa ngi ci mooy waxu la dëgg da laa ragal man dama lay wax dëgg bu mel ni yow xanaa sa bakken bi bëggoo ko bëgg naa ko koo bëggee sa bakken bi ñun nga yërëm ñu ñun bis bu nekk ñu yëkkati woote tension saalit jabetu saalit gan saalit moom moo nit ñi yow da ngaa te lépp lu tension di bañ yaa ngi koy def yaa ngi lekk lu niin yaa ngi lekk lu duuf yaa ngi lekk lu wex yaa ngi lekk lu saf foo ko teg beneen bi bi ci topp mooy sa jabet bii foo fekk lu neex suukar am yow daal ceeb lépp nga dugal sa biir loolu yëpp nag boo ko boolee doo ci faju doo topp benn régime xam nga lan la lay diggéel ah feebar bu chronique te bés bu la tension dalee hypertension euh, euh, hypertension artérielle ngay am boo moytu mu yóbbu la ci AVC wala nga dee. a a mooy sa diabète bii nga euh, sa cardiaque bii nga cardiaque yow bis bu nekk yaa ngi xëfti xëfti di fët fëti fu la nekk ngay mer wala ngay kontaan foo ko teg. yéene leen ma jàmm boo nee laajte foo foo koy waxee. leen ma jàmm te ba sama. yow yaa war a yow yaa war a bopp bisimilah rahmaani rahiim yow lan moo xew bisimilah jàmm. lan moo xew yow. lan la. eh lan moo